Mbacké Baol Mbacké xam nga ni mel tey gis ngeen Mbacké Baol tey ni mel gis ngeen gis bi nii gis nga ni mel ni gis nga booy ñi ngi nii teg nii di taal yi gis ngeen leen gis ngeen leen gis nga janvier gis nga lépp biir Mbacke bool la tey kenn amul foo jaar ba jàll tey tey moom Mbacke dafa kenn amul fenn foo jaar libéré Sonko rek ngay dégg kon kon nag sama gars yi bu fekkee téye nañ Sonko kon réew mi nan lay dem te yu mel nii nii nii nii commencé am ci dëkk mi nii ah ah xoolal ma lii dégg nga leen dégg nga leen dégg nga ñëpp ñoo bokk fu ñu jëm gis nga ko boo demoon ci biir bi tey fi ñu doon kenn foo jaar ba jàll gis nga pneu yaa ngi tàkk station gis nga tout ça gis nga tiavi gis nga ko kenn amul foo jaar gis nga porte yi gis nga gis nga gis nga gis ni ñuy yàqutee gis nga ko waaw gis nga gis nga dem gis nga dem gis nga ñëpp ngi taxaw nii oto yi kenn mënul am foo jaar ba jàll benn benn oto benn oto Mbacke Touba fépp fépp tund ko sëñ Bada RFM sax gars yi fi doon ña nga fa taxaw di yàq mais amagul fur jaar ba jaar ndax dañoo woo autorité te mënul ko ñëw ak si bopp ba léegi gis nga ko ñëpp a ngi nii gis nga gis yi ñëpp Touba lañ ngi daw ci Touba instant yi waaw waaye gisoo waa Darou Mouhty nii waaw pono bi la ñuy taal rond waaye jàpp yi ay orange mooy jàpp bu yàqu daal dinaa nii nii taxaw ñu